ation bonne voie ci presse la mën a jaar presse dafa bëri pàcc donc nit ñi nañu am honnêteté bu ñu toogee sénégalais yi di leen di xool ak fu ñu munti nekk ñu wax ak ñoom ci ci franchise ak aussi ci jub ak ak éthique ak euh, vraiment euh, dëggu man très sincèrement ñoom damay rappeler toujours ci nan lañ leen falee muy Pastef ñii ñi sénégalais ñoo sonn dañu yàggoon yuuxu di jooy alternance depuis jamono Wade après Wade benn euh, Macky Sall ak Benno Bokk Yaakaar après Benno Bokk Yaakaar tey Pastef ñëw te yéen sénégalais dañ leen jàppee woon ci seen discours vous donnez un discours fort avec lépp li sénégalais doon xaar comme aussi mën nañ ko wax ni Afrique doon xaar que bu ngeen ñëwee lépp luy politique politicienne day dagg il faut savoir que nit dina nekk ci système gis lii dem ci système yëpp mais mu bañ ko neex maanaam ñun dañu nekk biir Benno mais on ne cautionne pas tout ce qui se passait dans Benno on a vu un président de la République extraordinaire qui a fait de de des merveilles au Sénégal ku ñu ku ñu naw au niveau Afrique au niveau mondial au niveau de l'Afrique koo xam ne nii fépp fu mu si taxaw Sénégal day sigi ku def loo xam ne lu ne gaañ ci réew mi on le reconnaît et aussi tamit am na yu bëri yoo xam ne amuloon te ñu ko doon xaar mais yéen ba ngeen ñëwee ak seen i discours c' était un rêve que vous avez vendu aux Sénégalais Ousmane Sonko fépp fu doon metti du ko doon tudd même ba ci mbëkk mii tey ñu jaakaar lool depuis barki dina ba démb ay vaar lay génne yoo xam ne nii ñoom ñëpp dañu ci doon prononcé wu. comment ça se passe lu tax loolu am waaye aujourd'hui aussi nit ñi dañ doon xaar sincèrement le président Diomaye dafa am parce dafa nekk ku ku calme ku noppi mu nekk doomu séeréer ñëpp jàpp ni wax dëgg yàlla ay nitu kàddu lañ kàddu la parole donnée c'est très important et puis moom kilifa la man dama koy wax nit man du ma manquer de respect mukk sama kilifa et le président de la république son excellence Bassirou Diomaye Faye suñu kilifa la ñun ñëpp au Sénégal mu neex ñu mu nakar faluñu ko te man su ma sañoon Amadou Ba moo fi toog mais aujourd'hui yàlla mooy tànn c'est Sonko moo doon xëccoo mais moom la yàlla fal nag que ñëpp nangul même ba ci Sonko parce que j'ai vu les gens dire que il exécute les ordres de Ousmane Sonko xam nga loolu déjà beneen beneen beneen beneen euh, statut la koy jox c'est un président boo xam ne motul président mais man je di que bu xasee génnee joxe sa parole na ci na ci na na ko na ko na ko jëfee parce que président Abdoulaye Wade gis nañ fi li ko fi daloon wax waxet aujourd'hui on le taxe de wax waxet parce que effectivement Ngom le disait tout à l'heure il aurait pu tout simplement ne pas donner de date de DPG pourquoi mu mu mu wax leen ni le DPG euh, la DPG va passer le 13 au moment où que ni yow xam nga que ni DPG bi du du am avant muy am di nga ko tas et puis Ousmane et sorti pour dire balaa la 12 boobu noonu balaa DPG di am ñoom dinañ tal leneen lu dul waxu député waxu motion de censure dikkaatee ci ci euh, parole yooyu loo xam ni dissolution la boo xam ni waxoon nañu ko wala junjoon nañu ko effectivement kii dafa wax jaar ni kii wax jaar et loolu tey image bi sénégalais yi am ci moom du nekkul lu rafet te qu'on se dise la vérité wax dëgg yàlla DPG bu fekkee bu fekkee rek simplement DPG am na wax naa ko fii l'autre jour euh, kii euh, ki fi toogoon la waroon nañu mën a def déclaration de politique général pour les Sénégalais respecter la constitution su ko neexee bu parewee DPG mu ci saa si mu déclarer mu mu mu mu mu tas assemblée nationale. parce que ñoom li doon kaas yëpp fii lañ toog ñun man ma na leen carrément assemblée man gëmuma nii assemblée nationale bii nii dafa war a des te aussi tamit naka la assemblée ñoom ñi pro ñoom ñuy bind loi yi naka lañ mën a nekk seen loi organique baaxul ñu ciy liggéey ñoo nekkul ci dëgg mais ba ñu defaree loi organique ba ba pare moom moo waroon yéeg au chrono déclarer rapidement du xaar sax ñu koy wax ñëwal dem defi ci déclaration de politique générale am sénégalais yi xam fan lañ bëgg yóbbu réew mi ñin ñi soutenir leen ànd ci ak ñoom parce que ñoom ñoo jiite gaal gi ñoo nekk ci ci direction bi bu gaal gi suruxee ñun ñëpp ñu surux on leur suwet vraiment de réussir la mission et yàlla lu muy def après bu nekkee bu fekkee yàlla dafa wax ni ñoom ils vont la là jusqu'à cinquante ans qu'il en soit ainsi mais bu yàlla ne benn mandat lañ fi am munuñu munuñu ko rëcc parce que yàlla Macky Sall la fi tegoon amul lu Macky deful mais aujourd'hui munul daanu daanu daanu dajul fépp daanu suuf dajul fépp aujourd'hui Macky munul motal li mu defoon macha allah ñu koy ñu ngi koy rafetlu dem na mais ñoom ñoo ñëw qu'ils ils doivent continuer mm-hmm. Sénégal dafa soxla continuer soxlawul dellu ginnaaw mais aujourd'hui malheureusement mm-hmm. ci fi ñu leen doon xaar ak li ñu leen doon yaakaaree yépp man tey laa gëm ni ñoom parewuñu pour euh, parewuñu pour euh, liggéey sincèrement dans le sérieux man je disais toujours que j'attends un état sérieux mm-hmm. mais lii lii nii xew nii démb ak discours président Diomaye Mhm. man ça m'a surpris d'un côté lu tax mu surprendre moom mooy je m'attendais dama ne woon wax naa ko fi dama ne woon mhm. non DPG day am moom bu ñuy tas assemblée ñu tas ko après mais moom il a envie de fair dérouler son programme que nit ñi xam lu muy lu mu bëgg pour Sénégal mmh. maintenant quand que la euh, la DPG sera sera faite quand élection ah, après. élection installation après bu ñu installer assemblée nationale quand est tout ça les sénégalais vont être comme ça dans le suspense du ñu xam lan mooy politique gu réew mi au moment wu ñu am ay urgence yu metti muy mbëkk problème mu mbëkk mi problème mu mbëkk mi c'est pas c'est pas c'est pas c'est c'est pas tout simplement une question de politique intérieure c'est une politique internationale qui nous interpelle à nous toute l'Afrique mais Sénégal nekk une tête de l'Afrique war ko jiite war a wane direction parce que Sénégal bu taxawee ñu bëri topp ko. Mm. et que bon vraiment ci loolu rek ñun ñëpp sénégalais waroon nañu munu a jiboo toog dans un dialogue pour mën a soutenir l' pour mën leen a accompagner si ay idées naka la ñuy saafarawee mbëkk mi mbënd mi problème yu ñuy jàngandool ak le pays qui est devenu une un pays à factorielle am ay ressources am ay professions yu ñu war a andi ci biir réew mi jeunes yi ñu former leen yokk leen ñu jox leen espoir de rester dans le pays. mais comme ça les Sénégalais se disent carrément ñii ñun la ñuy ñun la ñuy ñun la ñuy caaxaanee ils sont là de faire politique au moment où ñun dañoo soxla xëy ñun dañoo soxla tekki ñoom ñu ngi xeex seen biir mais dañ leen génn réew mi ñi am doole avion la ñuy jël ñi amul doole dañuy jël ay mbeddu suuf ay yoonu suuf et pourquoi ñooñu ñi ñi am alal tey mën a génn ñi amul amul alal mënuñu génn c'est euh, c'est injuste. donc il faut que vraiment ñu ñu ñu moom moom le président Diomaye mu xoolaat toogaayam qu'il s'interpelle il n'est plus un président de parti ni de coalition un président du, de la République du Sénégal waxam daf ko war a respecté sa parole donnée mm-hmm. voilà la parole vaut de l'or déjà par rapport ak la suite ak dissolution Assemblée nationale ce qui